ñëw waxtaane Cheikh Ibra sama borom dogal nag daanaka fii démb xaw naa fee fanaan ndax yaakaar naa ne trois heures du matin laa fi jógee waxtaane Cheikh Ibra donte na sax nag lu ëpp ci mbooloo mi nekkuñu ko xëy na coono yi ak liggéey bi leen tënkoon waaye comme xarale yi ñoom Modou Faye ak jëwriñ yi yor buñ noppee danañ ko mën a toppaat ca loola waaye tey nag ñu amoon yéene rek ci kàddu ndax murit bi bi muy wax léegi ci biir daf na ma naa soññee as tuuti ci pas-pas te pas-pas moy liñu fi dajalé no ngi sant nak bu baax ndax li ngeen nekk mooy liggéey Serigne Touba man nak damay dogal ngant ci netali lo xamné ne mouride non lañ koy waye da fay bok ci waxtani bir nek da fi am penc la moy lenn ci digënde maam Cheikh Ibrahima Fall ak khassidi ndax lu waay kat xam-xam xam ne magi Seex Ibra yi fi mujj te Seex Ibra yaral leen boppam xaside yi liggéey nañ ci liggéey bu rëy mata waxtaane bu ma ci tuddee ñetti mag rek day doy sëkk su ko defee waa kuréel gi nag mën a tàmbali njàng mi ndax fekkoon naa ñu toog ba nopp maa ngi koy tuub nag muy ku ñuy wax Baye Thierno Sall moom gépp ak ku ñuy wax Baye Mor Ndiaye tomb deel moom it daa rey gépp la yaroo ca Seex Ibra ak ku ñuy wax bàyyi Modou Wade jës daara yi gunge la nekkoon lu ma leen nettali fii nag ci Seex Ibra ku Seex Ibra yaram moo ko wax mbaa ku Seex Ibra yaram bàyyi ndax àddina bépp ngi jàkkaarloo ak moom te kilifaa ngi toog te it ñimewuma Seex Ibra ñime ne toog fi naan foog naa ak yaakaar naa diw nee na ma Seex Ibra nee na ko laa lay wax wala diw nee na ma baayam nee na Seex Ibra waye ñi mëna tuddal nak bari nañ ndax damay ber mom bàyyi cheikh ndaw ndax daf ma jégué bu ko ko tudd bu ma neexee waaye daa ngeen dégg ku ñox wax Aliou ndjay mam jaar waw mako xamone bu baax ndax moma ma yar amutoon kër sama kër mam cheikh ndaw la dëkkoon ndax moko def defu mu nekk ak mom ben dom la fi bàyyi bàyyi cheikh la yaakaar mom lañ ko tuddé ma ngi dëkk Aliou ndjay bàyyi cheikh da bëggoon jëssu nak lool

ñi ko xam jërëjëf ñi ko xam xam nañ ne sañ-sañ bi mu yoroon bokk na ci lim dencoon ci soxna ci biir këram moom bàyyi añu jaay maam lim bu nu toll kenn mosu koo dégg ci li ko may nag laa leen di wax tey nii nga def la na der ci kanamu seet Baye Cheikh gis ko waaye Baye Aliou nag tëgg ko ci façon da ko doon xaaju Baye Cheikh na bëreet jug na ko xaaju koo xaaju ba téere bi jeex façon la muy soxna. waaw xaaju koo xaaju rek fasal naa la ko muy soxla bàyyi seex di xaaju ba téere bi jeex lu toll na lam xaaju lépp bàyyi si bàyyi maam Aliou Ndiaye denc na ko ci soxla bàyyi seex ko ko wax mag ñooñu nag xaside yi ci lañ doon dox gis nga bàyyi Mor Ndiaye tombu dem xaside ak jàllibatu maraaxib moo doonoon buntam ci la daa dox bàyyi seex bo ubbe wakana xalbi dem ci maha balaa yi wa maha amra di joon man moju sama bàyyi am naa lu ci ne xamna bu wer ci li wax Cheikh Fall ko tegal sa baram ci beuyit wo mu tek ci mu ne ko su nit ñi xamoon ci beuyit bi wop dootu am tu soxla yeb dana faju waaye li lepp ma leen di netti nak la ca la ma ca mëna wodd ta wax ko la leen di wax la ca dess mu tu ndax waxtani bi bay Mor ñay tok bu del daana tok ci benn jataay jàng junniy jaali ba tukuraan lolu mom ban halwatu lako da duggé waye bokut ak fanwer ñeen fuk ak ben yi ndan xey di dekké comme ni café Touba ci ta bay Mor Cheikh rafa yar su masaan xëy ñi juróom-ñaar juróom-ñaar témiri juróom-ñaar juróom-ñaar fuk junni basmala ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fuk ak ñaar lay ci kurusam su noppee teg ci ñeent fukki sorti yasin ak ben su neppee teg ci ñeent fukki maraax ak benn wéyal fanweer teg si rek loolu comme café Touba ci moom bàyyi moor bu xëy mukk te defu su noppee jël kurusam kii moom ñaari tur yi la amoon ñun daa wér ku dajut daam dajoo ku dajut daam dajoo ku dajut daam dajoo mbaa mu naan xoola barkeb kookee barkeb kookee barkeb kookee lii mooy tur yi Baye Mor Ndiaye tombu daa wér daa wér ci kurusam te Baye Malick Ndiaye ngi dund waa Baye tomb te neena so ma sandi jangi xassid ak jali bu ag ci sallallahu alaihi wasallam na ya fatahu ala lahi sumatahul miftah bay mor neena luma laaj sa borom def saasi jox na len ko adiyé cheikh ibrahima do adiyé ko ko cey koke cey cey koke waaw mbokk yi jëwri neena ñu ñew teral sëriñ Mamour Ndaw mii ngir jëmbe seere Faal ñëw leen jox ko yi Seera Faal ma seetaan nag ma ñeetaan rek ay ca mu gaaw moo tax xasida yëpp xasida yi Cheikh Ibra Fall xasida yëpp xasida yëpp xasida yi Cheikh Ibra yëpp dadaa durus waaw danaa ci dégg dadaa durus Cheikh Ibra dadaa durus man teg naa sama bët ci ay xasida yu daa durus ca njëriñ maa nga ca gaal yi ñu denc da daa durus xamam Cheikh waaw moo ci mënoon ñëpp mag ñii tam xanaa xamoo leen ne mag ñooñu sax comme ku ne baay Baye dan defe naa Baye Baye Nis ngi ci toog xam na li may wax baay Mahamadan Touré moom wàcc na waaye Baye Cheikh Sylla ak ñoom ña nga ca kii Baye Ndiaye ñoom xam nañ li may wax fi des jeexitali ñoom Baye moo jekko mu ñoo ñoo leen toqi waaw mag ñoo leen toqi moo tax boo xoolee sax bisu Baye Mor yeeg Baye Thierno Sall yëpp ñoom ñoo ko seere di ko def Baye dana daa def bisu Baye Thierno Baye Baye Malick Ndiaye def mag ñooñu ñee leen dokk ci xasida yi mag ngi Cheikh Rafal yi ak bay Baye Modou Wade jiss nga xam na Cheikh Rafal mas nako nak kangum kàngum alquran dem sawar mu nako waw mu nako waye kangum jissu dem sawar Cheikh xasida yi nak ndax mag ñi dañ daan Cheikh Rafal dañ daan romb ñu ko da cokkaas gis nga ki daan wax bay malik ñay da da yéeneel señ bi señ bi mas nako Cheikh Rafal mas nako ko mu nango fi xala nabi usman ya sawol Cheikh Rafal na hé hé bokkuma ak usman de jere <laughs> jere Cheikh Rafal na gees nako ko hé hé bokkuma ak Ousmane de Hmm. dedet ko kuma kusman de amna bis da ko rom nan sidu lu xóom bu kabur wala Malick Ndiaye di waxante de waw Mbacke def Mbacke def Mbacke def Mbacke def Mbacke sëñ Abdou lakara mom Cheikh Abdou Lahad def Mbacke ci def Mbacke xam nga ne lii day seigne bu keman la démb rek la woon bi Cheikh addiyee Cheikh Rafal kon li dal nam xel lii ñu gënal ngay dem ci waxo sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall dong la ñuy wër pour ñu leen moo tax Cheikh Ibra Fall nag xasida yëpp ay xasidam la waaye tuxfatu nag mooy Cheikh mooy Cheikh Ibra nag ah waaw mooy Cheikh Ibra nag ndax maam Cheikh daana tiim ku koy jàng mag moo ma ko nettali na ma Cheikh Ibra Fall daana tiim ku koy jàng mu ne hee tey sëñ Bamba day fekk góor mu teud mu tang ci dëndam di jox góor ñu moy nan mais nee sa sama bi la ko sëñ Bamba tank xasida waaw mu toppatu moy Cheikh salam Cheikh nee murid bu ko mokkul ak góor bu ko teyam waaw léegi nak kon jëm ji tok di doomi Cheikh abdullah Ahad Sëñ Karam dafa am lu may nettali ci pas-pas ndax Cheikh Ibra Fall dimbali ñëpp ngaay gii bàyyi Cheikh Ndiaye daa fii la ko Cheikh Ibra joxoon digal mu dëkk fii waaye li taxoon mu dëkk fii biir la loolu la leen di nettali daana wax ne kuy dund ci nekk te ne ci kaw suuf da ma umpale man waaye ku faatu ba am ñetti fan ci bàmmeel di nga xam ne taxoon Cheikh Ibra bàyyi ma ngaay waaw Cheikh Ndiaye daa waaw motax ngay dekk bu am way ak maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ba seigne Moussa kanan leram gi sar ba ak si ties ku ñew mu dule ba nga fess lii nit ku ñul ak nit ku weex nit ku nga bofa kay mexe ne ne seigne Cheikh Anta Mbacke khalifa Daaru salam mi ngi ci yoon bi di ñew and ak yi dekk bi kon xiste bi may nettali ta delo kaddu bi mang koy wax ci seigne Abdou Lahad lum mu ci mam Cheikh Ibrahima Fall bi Mouridina sëñ Cheikh Mbaye yaaram moo ma ne waxoon naa ko fii démb démb ci bi sëriñ Saliou bi sëñ Modou Aminta di liggéey sëñ Saliou gi nga ke sëñ Saliou gi sëñ Modou ko doon liggéey bëri na sax nag ci kër sëti sëñ Touba yoo xam Baye ke sëñ Saliou gi moom sëñ Abdou Lahad ko sant sëñ Modou Aminta ngir mu liggéey ba koy liggéey sëñ Abdou Lahad daa bàyyi bu gudd jot mu dem di xool liggéey di ca nag lool sëñ Cheikh Mbaye yaaram nee na sëñ Abdou Lahad moo ma ma ñëw mu ne ma seex bi damaa demoon xooli woon liggéey bi sëñ Modou Aminta di def ke sëñ Saliou waaye seex liggéey ba kéemaan na lool sañ Mourou Binta da jàmbaar la waaye dama laa bëgg a nettali lool njaareem la xewoon fi Cheikh Ibra Fall yëpp laa tey nettali de daal di wax sëñ Cheikh Mbaye yaar na ko dafa am kilifa tukkulóor bu ma a ñëw njaareem seet si Cheikh Ibra Fall ànd ak dongaam ab dongaam la ànd bi mu dikkee Cheikh Ibra Fall woolu sëñ yaaram mbay na ko dama dalal kilifa gi dama dalal ku ta ñëw sëñ yaaram dalal ko ab diir sëñ yaaram del siwaat ci Cheikh Ibra Fall mu ko yaaram ana kilifa ga mu ko dalal naa ko mu ne ko ah, dënn baa nga fees te lekk araf moom moomee waaye ndongaam loolu ci gannaaw mo andal de gën waw na ndax ndonga li mas naa gis sëñ Bàmba te su gis sëñ platay Lahat ay nettali nee na ne suuti sëñ ba ci kanam mu delu ci kilifa ga néna ma ngi waxtaan ak ko waw ndax bi sëñ toubay né ci kaw suuf mas ngeen gisé néna kilifa gi ma man nak jottu mako gis néna ndonga nga sunu ci gannaaw na bërët na man de am tawfiq bi seen ci jorom woro fasal né na sëñ na ma gess na ma waw cheikh ko xamna gis ko kep dana tax gën sa morom kooku saa boo ko dee xëyal xanaa sam xel war naa dal ma ne ko waaw mënu mën na seen xel dal bu baax a baax a baax loolu sa bàyyi ko nett di de suñu seex mbay yaaram bu ko wax bi ci des mooy nu xam ne kon sëriñ bi lu mu bëgg ci nun rek am na waaye nag ku def bëggu sëñ bi sëñ bi def sa bëgg te yéen a ngi def bëggu sëñ te nag sëñ Touba ceddo yi masaan bi jébbalu ci moom ñëpp ku ko mas jox sa bopp mboole la Cheikh Ibra Fall motax demb ci guddi bi ngeen ubbee bis bi Cheikh ibrahim Fall ci ngont bi xey khasside yi ma wax ne yeen bo le ngeen ñu bokk borom ndax Cheikh ibrahim khasside yi bokk borom Cheikh ibrahim khasside yi ñoo bokk borom seeda yalla te lu ma sa ñew ci seigne Touba mu yabal Cheikh Ibra xolal xoolal mbaaxaan mi ngeen deg Cheikh ibrahim ko def mourid ablay Xaar mi ngeen deg Cheikh ibrahim ko def murid ñoxo boore màngara ma ngeen da deg tuub na ca njéerim seigne Touba tuddu ko muuru màngara muy tarbiya di rot ndaaya mbar jur sigi ci njukki Cheikh Ibra Fall ko def murit tudde ko Ibra Fall mbar jabot ga nga ca kon tay ta bo fàttali ko histoire da nga xamne kon nega te Cheikh Ibra kum dimbali nga am dimbal ñom ñep Cheikh Ibra Fall leen dimbal la kenn ko ne bi ngay ñew ci seigne touba yatu nguur nga yoron tay waye dang ko sanni ngir yatu ngeum di tërbiyee seigne touba Cheikh Ibra Fall keroog bi mbaaxaan di ñëw di jox boppam fofu lay tëj sama kat mag ñi dañ doon fàttali ko la woon ci dem moy yaangi ngi maa ngi yàlla ngi yonente nga sédé yaangi waye li lay xamal ne cheikh bi kenn xamul lu mu doon mbaaxaan taxaw di joxar bi bobu boobu amagul fanweeri at ñepp na alko na mu mujj doon cheikhou Baay Faal kay mangok ngoog ma bi dafa bëgg ñaanal mbolu mi ta dem mané ne keroog bi mbaaxaan di ñew di jox bopam seigne bi magni ñi fàq na dugg ci kër gi am ku ko dey ne ko demal ci cheikh Ibra Faal boo jaaree ci moom ñëw li nga bëgg da ko am mu dem jaaree ci maam Cheikh Ibrahima ñaari kàddu yi sëñ Touba yi Cheikh Rafal wax sëñ Touba rek laa leen bëgg a leeral ngeen dégg bi mu jàppee ci loxoom mbaaxaan bu ñëw ba ci ku tedd gi daf ko ne Mbàkke dimbalil mbaaxaan dimbali ko ndax Firawna ak borom ka mbaaxaan mi yëgu ci te yaa gën Muusa wasalaamaaleykum wa rahmatulah